dañ doon dajek yéen tey fii ci suba ndax bëggoon na waxtaanaat ak yéen ci li nga xamante ni jëm na ci li ñu doon wooyee processus su appel d'offre bi Sénégal defoon maanaam woote gi mu woote woon pour mën a tànn kenn koo xamante ni moom lay dënk lépp lu jëm ci joxem ndox mi pour askanu senegal woote googu mu ngi tàmbali ci 2016 atum 2016 ci leen ko tàmbali tey jii ñu ngi 2019 ñoo ngi bëgg a dugg ci ñetti at yoo xamante ni processus bi mënta jeex te bari coow lool am ci itam ay jiixi jaaxa yoo xamante ñu ngi ko cee tudd lu waral loolu mooy que ni bi nga xamante ni ministère bi dafa woote appel boobu dafa teg ay sart ne ñi nga xamante ni bëgg nañu joxe seen kàddu pour doon mbër ci ñi mën a mën a samp seen ndënd ne dinaa mën a joxe ndox mi ni ma ko soxlaa nii ak lii lay demee ci itam ñetti pàcc lay dem pàcc gu njëkk bi dañuy sélectionner ay proposition pàcc bi ci topp ñu xool ci ñooñu ñan ñoo am proposition technique yoo xamante ni mën nañ ci sukkandiku pour yaakaar ni seen man-man seen xam-xam ak seen doxalinu technique mën a tax ñu mën leen a tànn ñetteelu pàcc bi doon nag ñu joxe ay proposition yoo xamante ni da jëm ci bu nu amee capacité technique bi nan la ñuy jaayee ndox mi ak ñaata lañ koy jaayee ak ku ci bugg a raccordé wu ñaata ngay fay ci proposition yooyu nu ñoom waa ministère jotoon neuf proposition juróom-ñeenti proposition ñu tànn ci ñett ñett ñooñu doon benn groupe bu wooyee Suez benn groupe bu ñu wooyee Veolia ak groupe bi nekkoon Sénégal muy SDE ñi nga xamante ni moo fi nekkoon di ko gérer bi ñu jotee seeni proposition technique ñu leen nag def leen ñu ay proposition financière ñoom tam ñu def ay proposition financière ñu gis ne ci yooyu proposition financière ki ci waxoon njëg goo xamante ni méngoo na ak poosu Mignane méngoo ak poosu Seydou Ndiaye doon na ki nga xamante ni moom la ñu wooyee SDE moo ne woon mën naa jaay ndox mi trois cent quatre-vingts comme ça Euh, mënuma ko wax tellement trois cent quatre vingt ah. Euh, voilà deux cent quatre vingt cinq virgule neuf francs maanaam juróom ñetti dërëm yu ah juróom fukk ak juróom benn dërëm alors keneen ki Suez ne man mën naa jaayee deux cent quatre vingt quinze virgule cinq veolière yi man mun naa jaayee trois cent soixante cinq virgule trois ñu laaj leen mais léegi nag Georges donc bu bëggee raccorder sue dox ci këram ñaata ngeen yaakaar ni moom ngeen koy fayeeku waa SDR ñun ndey bu ñu joxee quatre mille francs mën nañ ko raccorder waa siège ni ñun ku ñu bëgg a raccorder ci ci réseau bi da nga nu jox deux cent trente et mille francs daanaka le double pour ñun nag bi nga xamee dañoo toll woon ci décider ci ay offre financière ci suñu gis-gis ki gënoon a yombalal sénégalais yi njëg li ak raccordement yi pour ñun kooku moo waroon doon ki nga xamante ni moom lañuy dënk suñu alal te feeñal gi ministre bi moo ko wax ci benn émission bu ñu ko invité woon ci benn rajo. pour ñun sax amul war obligation di ko wax ndax bu boobaa dafay def li ñuy wooyee violer nga secret proposition soumissionnaire donc ñu gis ne loolu am na alors bi waa ministère génnee résultat yi ne ah drapeau bi day Suez moo ko jël moom la ñuy dënk finalement euh, njaayum ndox mi waa ñun ñu am itam njaqare ne ah non lan moo war a mun a expliquer ci ñetti mbër yi ki ci gën a yomb njëkk ñu bàyyi ko fi dem jël ki nga xamante ni moo ci gën a cher njëkk lan moo expliquer loolu comme amuñu woon réponse ñu ne nañ fexe xool ndax dafa am leneen lu ne ci biir mbir mi si noonu nag la ñu gis ne. ci bi mbir mi commencé waa chaise yi bokk ci mbir mi am na maye gu baax gu ñu def jagleel ko responsable ministère bi te mu doon itam maire de la ville de Saint-Louis xibaar boobu kenn joxuñu ko kudul le journal quotidien national Le Soleil mu ngi nii ne fàng ñu ne ah est-ce que donc du maye googu dox diggante maire Saint-Louis ak Suez est-ce que du loolu moo tax njort gi ñu am ci biir processus bi nekk doon loo xamante ni mu ngi bëgg a wey ñu xool ne dañu wax ne maye gi juróom-ñetti juróom la la mais déjà ñaari yegg si na. ñu dugg ci sunu réseau yi laaj sunu àndandoo yi nekk réew tugal yi waa France waa Belgique et ñu xamal ñu ne camion yi weesu na li ñu annoncé ci journal bi camion yi yegg na 30 ak lu ko topp ak leneen donc ñu commencé itam sunu xel di tey ñu xool loolu ñu ne lu tax ñun duñu bind waa Suez laaj leen. tuuma yi nga xamante ni ñoo ngi koy dégg ci ñoom ak xel gu ñaaw bi ñu dégg ci ñoom nañ leen bindi laaj leen ñu toog ak ñoom ñu waxal ñu ñu expliquer ñu bu dee dëgg la ñu xam bu dee dul dëgg ñu xam ko ñu dal di bind kayit bataaxel demandé waa Suez audience jël kayit boobu yónnee leen ko par poste fay xaalis mu dem ñu xamale itam ne am na benn forum boo xam ne dañ cey bokk mu war a am UNESCO UNESCO forom bii la doon amee foofu biñ ci demee dañ cee profité ale dem ne waa Suez ah ñoo ngi fii de dañoo bëggoon waxtaan ak yéen woote seen i bureau ne leen ñoo ngi fii annoncé nañu sunu présent dañu bëggoon dajeek yéen pour mën dajeek directeur ñu ne waa daañu leen daañu ñëwaat ci yéen toog nañu ñaari semaine tugal di xaar lu ni mel. finalement suñu mbokk yi nga xamante ni ñooy liggéey ak waa fondation France li Daniel Mitterrand France Liberté waa collectif droit à waa forum alternative mondial de l'eau ñu nekk France nekk suñuy àndandoo ne ñu yéen boo leen fi toogal sax weer du tax Suez recevoir leen xanaa kay ngeen ñibbi te ñu fexe préparer benn plainte boo xamante ni dañ koy def adressé ko. tribunal première instance de Paris chargé des question financières de la corruption plainte boobu ñun ñoo koy signé koo porté ko ak waa France ak waa Belgique ak waa Forum mondial xëy na bu loolu amee bu nu tribunal wooyee tugal waa Suez taxaw ñun ñu taxaw daanu xam ndax ger gi nuy ñaaw njort ci biir processus bi am na walla amul bu amul nag ñu xam ne amul bu amee nag li ci war yoon moo koy def li demee itam def nañ ko Union européenne ndax Europe euh, parlement mu ngi Bruxelles biñ fa yeggee ak su suñuy nattango yi fa nekk waa CNCD conseil national développement coopération développement maanaam kuréel bi boot ONG Belge yi bokk ak ñu itam ci forum mondial bi ah, bi ñu leen waxee sunuy tawat ak sunuy njàqare dañu ne nañ ànd Union européenne waxtaan ci ak ñoom ñoom ñu dal di bind audience woote foofu ñu ne waaye na ngeen ñëw 17h ñu dem wax itam li nga xamante ni moo nu indi woon ñu xamal ñu ne waaye yëg nañu mbir moomu ñu ngi koy suivre bu baax mais li ngeen ñu ci wax tey détails yi ngeen ñu jax tey amuñ ko woon nag dëgg-dëgg mais comme jox ngeen ñu détails yooyu. ñun daañu xool lan lañu mën a def foofu itam ci Belgique dañoo jéem a saisir lu ñuy woowe Olaf Olaf maanaam lu mel ni nag la fii ci ñun office la boo xamante ni dafay euh, xeex ger ak li ni mel ñoom itam dañ leen a saisir ma fàttali itam ni ci France li ñuy wooyee survie benn association buy liggéey ci France Afrique li ñuy wooyee Transparency International seen bureau bi nekk France ñoom ñëpp jot nañu xabaar yi jot dossier yi ma leen fi woon yëpp ak waa Mediapart am na équipe boo xamante ci biir Mediapart ñoo ngi liggéey ci mbir mi pour xam sunu soupçon yi nu am lan moo ko ëmb ba ci fan la yem ak ñan ñoo ci taq mais ñoom d'accord nañu ne daañu ànd ak ñun ñu porter plainte Suez génne li ñu am ci ay information ak leneen loo xamante ne génne guñ ko fii nag ci Sénégal bind nañu waa ARMP benn not bëggoon ci note boobu ñu bàyyi xel ci li nga xamante ni ñoo ngi koy rumandaat ci mbir mi mu doon ña benn ñaaw njort walla ay xel yu xaw a euh, yàqu dal ci mbir mi amaguñu nag seen tontu ñoom ndegam nag amaguñu seen tontu te dañu leen respecté ndax gis nañ ne ci ñaari yoon ñoom jël nañu décision suspendre li nga xamante ni moom la waa ministère décidé woon jox leen ko te ñi fa nekk gëm naa ne kenn gënu leen bëgg Sénégal ñi fa nekk ay borom xam-xam lañu ñi fay nekk ñu jàng yoon lañu ñi fa nekk itam gën naa ne seen liggéey mën nañ ko donc ñu yaakaar ni ci loolu mën nañ te ñun sukkandiku pour bàyyi leen ak seen xelu jullite ak seen itam serment bi ñu def te konte di am yaakaar ne daañu défendre intérêt Sénégal ba mu jaax